ñu ngi jàkkaarloo nag suñu papa ngay Mbaye Ngoné Fall di doomu Sénégal waaye di doomu Caaroy làmb nag fan yu bëri coow avance bi dugg nañ ko mbër yi nanguwuñu bëri ñu bëgg cee am moom xalaatam ginnaaw bu ñu la nuyoo tonton Mbaye Ngoné. waa maa ngi lay nuyu yow da ngay koo xam ne soo ma laajee dinaa sawar a wax ak yow su dul dara fi nga dëkk ci bawal moom moo tax ndax da dëkk diggante seew gaat ak ndondol dëkk bu ñuy wax ak yaay. ñu bari nag doole ne ak yaay xamuñu yooyu daal moo tax damay am problème ak ñoom Sofia jaata damay am problème ak ñoom waa ndax ñi may toogal li may wax xamuñu ko mais ku dëkk diggante seew ak gaat ak ndondol ba yarwaay bu kooku defe naa li may wax di ko xam te nag du ci mës a dellu ginnaaw ndax du ma ragal du ragal làmb li mu am léegi làmb musu koo am ci àdduna waaye la amoon ci làmb amul léegi ci àdduna ñaari baat yooyu noo ma koy tekkile li mu am léegi fii ngay gisee mbër di fayeeku de trente quarante cinquante à soixante millions jusqu'à soixante dix million boobu lu njëkk ba amul woon ñoom Papa Diop jëri Boston waa Pikine yi ngay gis ñoom Papa yi euh, ab ah, Boy Niang ñii ñoom Dégol ñoom euh, Moustapha Guèye ñu leen mag Mbaye Guèye le Tigre de Fass ay euh, Daouda Fall ay Aline Fall ñoom ñi nga daan ay Robert Mbaye Guèye le Tigre de maam góor gi Ndiaye ah. ay Aliou Seye non no non ñooñu amuñu woon loolu ñooñu 2 millions mi ngi njëkk génnee mi ngi njëkk a génnee ci làmb ci diggante mbay Guèye Robert foofu la 2 millions njëkk a génnee. mais léegi lu tax millions yi bëri te ñu ne làmb doxul. waaw doxul. lu tax doxul mais gisatoo bëri bëri amul. lu tax bëri maanaam ah, bëri amul lan mooy bëree lan mooy bëree bëri wul bit gàng nan wax mais eh laal na ko noonu doon na benn genou laal na benn bëtu om raam na déedéet du loolu de. mbëri coppet nan la daan def nga xam nu fii la la takk sa ndigg jargal na loolu yow buddi la ba ci kaw dóor ci suuf. mbëri léegi kon dañoo mënut la bëri su ma la dégg. xanaa xamoo ne mm, dégol mii bi juuf Diouf yarwaago mi nga xam ne daan na Moustapha Guèye daan Guèye kamara waaw daan na Moustapha Guèye ci mbappat mbapat juuf Diouf yarwaago rakku Xali juuf la Guèye kamara dafa dem ca Kaolack ca kër Alioune njaay médaille d'or bëree jof Aliou Diouf jógee Yarwaago ñëw yoxoosu ko bëtt ko buddi ko ba ci kaw dóor suuf bi mu ñëwee Fass wax ko ñoom Moustapha Guèye Ibrahima Mbaye ñoom Alsane Diakhaté ñëpp doonoo mer daa koy ne xanaa dangaa dof yow moo la war a daan te boobu Guèye dàq bëri ci Fass Guèye Camara mi waa dafa tuutoo mais moo dàq bëri mu am benn bis ñu dem mbappatu air liquide bi ñu demee mbappatu air liquide Aliou Diouf ñëw daal di ngemb tuus rek Guèye Camara ne Moustapha Guèye voilà kii moom a daan Moustapha dem takk ngem bëree moom léew nan def mu sëpp ko ngàdd Moustapha Pitt rek mu daw buddi ko laxas ko dóol ko ci suuf daal Moustapha Gueye waaw boobu daanoogul ci Ndakaaru dëgal moo ko fekk ca terrain gaal ga manga de tëgg ko fii ci xaar yàlla dëgal loxoosu ko buddi ko ba ci kaw dóor ci suuf dëgal la def loolu waaw te amu ci junni amul ci ñaari junni léegi su ma waaw ci làmb tey xaalis moo am léegi xaalis am mais léegi jamono xaalis amul noonu dañu gis làmb ji fan yi gis nañ fi bu yàggul avance ak Ama Baldé ñu ne combat ba taxaw na ba ñu waaj a fisale ñu ne waat Ama génnaat na ca ñu ne mbër yu mag yi tamit nangu wu ñoo jël mbër yu ndaw yi comme ay Modou Lo ay Gris Bordeaux ay Bombardier ay Balla Gaye ñun war a jël ay Boy Niang ay Ama Baldé ay Gouye Gui ay Reug Reug consort ay ñoom la ay Modou Anta waaw damaa léegi ndax tey Fass ngi fi Pikine ngi fi waa kër Eumeu Sène ngi fi ñëpp ngi fi ñu ngi dem di ko monter ji léegi mais bi ma leen interroger ku ci taxaw ku nekk da ngaa taxaw ne demal ci sama mbër waa Fass yi neenoon naa dem ci Gris Bordeaux ñi fi nekk ak Balla Gaye neenoon naa dem ci Balla Gaye ñii ne ma demal ci Modou Lo ñii demal ci Bombardier bu Mbuur nee leen mënatunoo bañ Boy Niang ñoom ñoo ko wax de waxuma ko te dinaa ko monter man ah man kenn ñemewu ma cee indil problème ndax doon koo monté dama leen a interroger wax ko. mënatuñoo bañ booy ña. waaw nee na man nañu jël dama ne waa Fass ak ñoom ñëpp ñoom ñoo taxaw ne Gris Bordeaux mënatul bañ booy ñang ñu ne Balla gay mënatul a bañ booy ñang ñu ne Bombardier mënatul a bañ booy ñang ñu ne Modou Lo mënatul a bañ booy ñang waxuma ko ñoom ñoo ko wax. yow léegi booy ñang moom ak Ama Baldé mbir yooyu ngay lim muy Bombardier Gris Balla gay Modou Lo mën nañoo bañ ñooñu wala. ah ëpp nu leen doole de ëpp nu leen doole de. kon luy problème bi ëpp nu leen doole de. luy problème maanaam pour ñi ci kaw. da nga ma naan tur ci tur ak ancienneté yàgg a bëre tur wa yàgg a siiw yàgg bugg ci seen i nopp mais pour tampali ko ah gisoo ar bi yàpp sifle gi rek booy ñang dox daal di jëm ci kaw kii jëm ci kaw lak de Guiers gisoo loolu wala yow ma doo reporter. maa nga foon kay. gisoo yàpp sifle gi booy ñang dox jëm ci kawam mu marqué deux pas trois pas quatre pas en arrière ah. mais daa mel mu mujj jamono dara de daa mel est-ce que mujj na mën dara ci Lac de moom kan. Boy Niang def nañu contact nag lu bare bare bari lu fa am booy Niang moo ko créé. lu fa am yow maanaam. gisoo loolu. gis naa daal indi contact ba. contact da am na fa. Ah, waaw loolu moo ko indi kan moo jëli. Boy Niang da dem na jëli ji waaye daa mel ni que mu <laughs> waaw non man xam nga sax su ma waxee ba sori mën na xaw a niru neneen te ñun ñëpp ay mbër na ma. mais Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 tey am na ñuy wax ne làmb ji moo ci dàq bëree ñeen ñi ne d'accorduñu yow loo gis li ma lay limal de mooy ci ak nguneem ba muy daan maam góor juuf bu bawol boobu maam góor juuf na xari naa daan lool ba muy daan sàmbalaw bu kees boobu sàmbalaw be na xari naa daan lool ba muy daan tafaatin tafaatin nag nangu ko waa indi la ma ci histoire sax loolu mbappat la waxuma la kii de stade bi de. ba ma ci Assane Diouf laa la wax. waaw Mbapat ma Assane Diouf waaw ci Assane Diouf laa la wax. nangu ko xuloon nañ ci man ak Tafa ah, Daaru Rahman ba bëgg cee jote mais après mu sedd ndax man baayam laa moom xam na ne baayam la maag papa ma doon ànd. waaw mu nga dëkk Njanjaar. waaw Njanjaar waaw Njanjaar Njanjaar Njaba Xali ndax neex caacaw Sewtin Fodaay Diouf waaw. mais Balla Gaye de moom mu nga ne ba muy daan ñooñu. mais tey lamb ji actuellement nii comme ni ñu wax nii ñi ne moo dàq bëri ñi ne dàqul bëri. ah loolu de ab soxor wala ñaan wala dof moom moo koy wax waaye ndax la mën naa bëri wala mënta bëri loolu wax ci yàqule yow xam nga xëy na bal la mën naa bëri. est-ce que moo fi dàq bëri. su ma ko waxee kii bi ma non loolu moom honnêtement du ma ci ndax fii ma toll ci réew mi la. fu ma toll ci réew mi du ma ne gis nga ñoom booy ñag ñëpp ngi nii taxaw ñoom du ma ne moo fi dàq bëri ci réew mi mën na de telewul de. kelewul de. est ce gune yi nga gis ni mën nañ koo daan ñoom booy ñaañ. ah non non non mbër amul diwa mën mbër amul diwa mën mbër amul diwa mën mbër diw moo mën ah xanaa fekk woo kees diggante Balla Beye ak Bombardier ñëpp tiit wala fekk wala fat maa nga xakañ Cees daw ko demul fenn bougéwul seqwul tànk coppet la ko def wañ ko te dafa njëkk a dugg ñu dóor ko ay rafal mu daw génn baaxul nii meewaat action bi bi mu amee ouverture da ko jël wañ ko moo Lo Modou damay ñëw ci moom mooy roi des arènes gars yi ne tollu ni mbër yi mais jaaxal mu ponkal yi. nee naa moo gën a tuuti ci mbër yi matul mbër nee naa leen du mbër. Modou su deful entraînement duggul saal comptable deful dara su ma tasee ci mbedd mi su ma tooñee damay xeex ak moom barke borom Tuubaa damay xeex ak moom ah <laughs> yow tam Modou Lo yow tam guddul du mbër du mbër guddul. mais mais lu tax mu lakkalaate maanaam. maanaam mbir yu mag yi fii ñu ñu tuddee ay ponkal. waaw maanaam dañ dañuy am ay jafe-jafe ci moom de fois c' est actuellement c' est le roi des arènes. waaw phénomène la. moo Lo phénomène la. phénomène mu gagné Eumeu Sène. tactiquement. ñu tëjee ko fi. dimbali ma rek nanu bàyyi maa ngi Pikine et puis nanu bàyyi daal maa ngi fii daal waaw sunu toogee ndax. dama ko bëgg invité bëgg invité ah ñoom Eumeu Sène ñoom ñëpp ku ci nekk dama la bëgg invité ku ci nekk say supporter ci xolu Pikine ndax Eumeu Sène maa ko jur Modou Lo aussi maa ko jur ndax seen Sène papaam ñun moom nan doon topp ak ñoom Pape Diop ñun papaam nan doon topp fii papaam Eumeu Sène gis nga la preuve année ba muy bëre ak Balla Gaye looloo ma jëlee RTS seen première édition Gaston moo ko la waxoon bañ jëlee la fa keroog man maa nekk micro central dama leen ne Eumeu Sène bëri na ak Balla Gaye Eumeu Sène bëre na ak Tyson Eumeu Sène bëre na ak Pape Ngom Eumeu Sène bëre na ak Mansour Diop bëre na ak Balla Gaye numéro un li mu amoon non non non moo tax mu daan ko léegi may leen da koy daan loolu laa leen wax léegi mu dem après mu daan ko boobu man ak Balla Gaye numéro un ñun ñoo doon toog RTS maag Balla Gaye numéro un bi ñu toogee foofu après day na xari bala gay numéro un ñoom ñoo fa dem bu nee naa la xam nga li nga may laaj fii tey Pikine wër ma ñëpp wër ma dafa bëgg Balla Gaye ba allez-y am ah, mi ngi noonu Balla ngi noonu ba ah en tout cas ñu ngi noonu de. yow noo gisee Balla actuellement. ah nee nañu bête noire amul. loolu nañu wax du loolu nañu wax nee nañu Balla du bête noire kan. ma seen du am kay daan ñaari yoon. déedéet déedéet kii Modou Lo dafa ne Balla du bête noire am Balla du bête noire am ah d'accord léegi. Euh, marqué ba Eumeu Sène daan na ko deux fois mais Balla bëgg na ko ba léegi yaadu na bëgg na ko Balla bëgg na ko léegi yow soo bëggee soo bëggee na roose Balla Gaye ma laaj ko Balla Gaye bëgg na ma seen ba léegi bëgg na ma seen de bëgg na ko ba tey bëgg na ko ba tey. kontaan kontaan naa ci yow. non man am man je suis là la famille lamb man damaa judd ci lamb man Papa Timili mooy sama mag.